lesbianisme lesbianisme mooy ñaari jigéen yuy jote seen biir wala boog homosexualité ñaari góor yu jote seen biir wala euh, bisexualité mooy euh, góor ñoo xam ne dañuy jote góor di jote jigéen mm-hmm. parce am na ci réew mi ñoo xam ne Euh, Cheikh Tidiane am nañ mm-hmm. soxna. waaw ami doom. ba pare am far. <laughs> waaw dëgg la loolu loolu mooy loolu la ñu woowee bisexualité. Mm-hmm. te loolu moo gën a garaaw fuuf nag. Mm-hmm. homosexuel parce que généralement homosexualité ñi mu dal man ngay identifier moytu leen. su fekkee da leen bëgg a moytu mais les bisexuels da ngay xam ne ñoom dañuy am soxna ami njaboot. parfois même ñu nek ay kilifa fa ñu nek jité ñu respecté jox leen et tout et téwul bu ñu juggé ci seen soxna pour seen bop danger lañ pour seen soxna danger également pour seen en général am ñeneen ñu tuddé les transsexuels moy nga xamné ay lañ wala mais ne par exemple gëm mhm. na ñu ñu mel ay euh, intersexualité euh, déjà ci seen ay kii yooyu dafa am ay changement yo xamné c'est pas mhm. forcément lié à l'orientation sexuelle mais euh, do xam goor lañ do xam jigen amna ño xamné également ay nécrophile lañ nécrophile moy ñi nga xamné dañuy dem fekk new ci morgu ba di sey ak mom lolu amna amna ño xamné ay zoophile lañ moy ño xamné dañuy dem fekk am xar wala aw nak wala leneen ñuy sey ak mom mhm. ñom yi la lim né yi dañ ko wara criminaliser ci réewum Sénégal bi ñu bokk ñu ne nag criminaliser boobu li mu war a jur mooy bu fekkee loi bi jàll na mooy ku ko def buñ la jàppee ñu tëj la diggante juróom ak fukki at ba pare teg ci amende 500000 ba 5 millions ba pare yokk ci ne képp koo xam ne da ngay def apologie maanaam man ma toogoon ci télé bii euh, di wax naan góor jigéen lu baax la dara nekku ci nangam ak nangam. Mm-hmm. su ma ko defee yoon dafa maa war a topp su ma toppee war naa mën a euh, dal teg sama kaw diggante ñett juróomi

mu tax mu indi ben débat moi euh, les députés d'abord du Sénégal ci ñooñu lay njëkkee. Mhm. députés yi euh, ñan ñoo leen assemblée. c'est ça la grande question. Mhm. ñan ñoo yob député assemblée moy ñan. Mhm. le peuple le peuple. Mm-hmm. parce que man dina mm-hmm. dégg président de la république parce que am ñom ñoo am titre bo xam président yoru ko. man dina dégg président de la république dina dégg chef de l'état dina dégg le président sénégalais dina dégg le numéro un du Sénégal le numéro un sénégalais mais dégguma le président du peuple. Le président du peuple, beaucoup de signes habitudes de langage. Pourtant, on dit le député du peuple. C'est important parce que nous avons une représentation directe, suffrage universel direct, l'Assemblée nationale, nous avons euh, askan yi tay bu fekkone ñun 16 euh, wala 17 millions de Sénégalais yi ñu doon. man mm. nañ semaine bu ñun wax ne lii la ñu bëgg du jar assemblée mais c'est parce qu'on a compris que ne loolu mënul nekk moo tax ñu transféré suñu ay kàddu jox ko ay nit ne leen dee leen daje di wax ci suñu tur moo tax sëñ Abdou Aziz Sy Dabakh daan leen fàttali lu am solo daan wax ne euh, su fekkee ne euh, boobu Abdou Aziz Ndaw mooy président assemblée mu ne leen bu leen indilee loi boo xam ne méngoowul ak askan wi seen i intérêt méngoowul ak seen diine wallaay bu leen ko voté moo tax député yi tey ñu nekk ci benn défi bu doy waar <laughs> parce que tey war nañoo voté par force mu neex leen mu naqari leen une loi qui xamné ne du arranger yenn sénégalais à mon choix parce que ñi leen fa yóbbu loolu lañ bëgg wala bok ñu na duñ ko ñi leen fa dootuñ représentant rek parce que mëno nekk réew la pétition bi lépp luy général ci réew mi euh, signé euh, église bi signé nañ ko bois sacré signé

ndax li ñu représenté ci Sénégal ñi nga xamné buñu yéwo ñu suba bu len ñoñu né def leen def bu len leen bàyyi leen ñu bàyyi ñoo ëpp ci réew mi donc ñoñu buñu waxé Sénégal mo wax donc so togué tay nga né man député laa ku melni maître Djibril War par exemple né kenn duñu tek pression kenn mënuñ ak nit ñi etc etc ça veut dire que y a y a problème il faut qu'on réfléchisse à lan lan moy suñu représentant donc défi bobu mom le peuple sénégalais la lancé assemblée nationale du Sénégal da ngeen di voter ñu xamné ne ñu représenter voter wu len ku nek xam ku nek ñi waxé lu golo xam lu muy boté doom ku nekk nekk xam ne duñ ci ay représentants et c'est important alors débat bobu nak mo ñu and ci tay nga mu neex la bu naqari la le pouvoir du président Macky Sall euh, Ibrahim Anne bind nako tay ci suba ci Walf Quotidien dafa nek do au mur do au mur moy son peuple les sénégalais ñoom ñoo wax ne dañoo bëgg am ngóor jigéen ñu criminaliser ko suñu réew moment boobu ñi nga xam ne nous avons koomu Aduna, la communauté internationale mm-hmm. réew yu ëpp ci les organisations de défense des droits de l'homme yi nga xam ne ñoo influents influent ci monde bi mm-hmm. di bëgg imposer réew pour ñu daganal am ngóor jigéen donc day am a problème bu problème. man j'ai bien compris la sortie de Cheikh Yérim Seck bari nañu ko ci critiquer mhm. euh, bari nañu ko né day défendre agenda homosexuel gay xamu ni ko mais j'essaie de le comprendre parce que lim mu bëgg wax moy tey jii bu une loi bu criminaliser homosexualité au Sénégal forcément ñun Sénégal war nañu xamné duñu du la communauté internationale duñu bayé non Forcément forcément y aura des organisations xamné amna ay financements yu doon indi Sénégal dañ koy téye mais li nga xamné mom la waroon agalé waxam té agalé wu ko xëy mhm. je me fais euh, j'ai la prétention de wu wax moi, ce défi là également sénégalais ñoo relever sen bop wolof moy wax né lo mmh. mmh. ci góobe gar ko c'est-à-dire uh-huh. que bu féké ne ñun ñoo bëgg té loolu lañu criminaliser homosexualité ci réew dañu wara a né luñ ci gar voilà bu uh-huh. même réew ci aduna yëpp buñ joxatuñ ñu dara bëggatuñ mmh. am ben relation au Sénégal ñu né nañ ko gar parce que jaral nañu ko jaral nañu ko mais vais ko jaral terminer rapidement Serigne ko euh, parce que am na ay réew ci àdduna bi. yoo xam ne ku fa tudd am góor jigéen ñu dal ci sa kaw te pourtant ña ngay lekk di naan. waaw bi su yaayee jaame. defoon na ko fi. Mm-hmm. soo demee tay réew réew euh, tay japp ñu bari japp nañ la la première puissance euh, euh, économique du monde c'est la Chine. Mhm. Chine tay est-ce que français yi ñeme nañ faa taxaw naan leen da ngeen di daganal wala da ngeen di araamal homosexualité. Mhm. soo demee ci réew mel de Turquie nga xam ñëpp gis na li ñi def Sénégal ak Recep Tayyip Erdogan. Mhm. tay Turquie réew la mo xam mais <laughs> kenn du fa taxaw naan leen da ngeen di ay daganal am góor jigéen. donc ñun Sénégal également autant on demande à ce que ñu criminaliser autant on doit. Euh, euh, être prêt à se dire que ni luñ ci garde gar parce que jaral et il faut que ça soit clair malheureusement Cheikh mm. je ne sais pas ba xam dafa ou voilà mm. mais les gens ont tout de suite interprété ça ne dafa un défenseur de la cause mm. homosexuelle moi même il est revenu pour dire que c'est pas ce qu'il voulait dire et pour moi c'est important mais une réaction et donc may yóbbu ci ñun les intellectuels enfin ñiy woowee seen bopp intellectuel sénégalais ci réew mi mhm. te juddoo wala bok jàngé ci école tubaab bi c'est-à-dire que ñoon dañu am un sérieux problème ak euh, placé wu ci société wu Sénégal man loolu la yaakaar mhm. parce que tay ah, da ngay dégg ku ne la ci république lañ nekk et que euh, république dañu war euh, ku mel ne am na benn journaliste pour bañ a tooñ suñu ay magu journaliste Cheikh tidiar xam bu baax wax ci benn rajo bërki démb ne la sexualité des individus ne doit pas ne peut pas être un débat mu ne nit ñi la euh, sexe euh, sexualité c'est une orientation sexuelle wala leen góor bëgg a nekk wala jigéen dañ bëgg a été góor wala dañ bëgg a sëy jigéen mu ne un débat mu ne poser débat boobu waa c'est des irresponsables ah oui wax ci la république doit protéger tous les citoyens on ne on <laughs> ne on ne doit pas aller regarder dans les culottes des gens <laughs> c'est un journal sénégalais qui l'a dit si benn rajo fii su ma neexoon cité rajo bi ak turu waaj mhm. mais jaru ko parce que bëgguma ma tooñ mhm. bërki démb mhm. ñi may seetaan ñëpp xam nañ ko c'est vrai alors ñooñu man dama jàpp ne ñooñu dañu am un problème pourquoi mooy intellectuel formé ci école tubaab bi da ngay réfléchir finalement comme tubaab bi parce que sooy wax ne la république doit protéger tout le monde mais boo demee France amna ay doomi France Yo, xamné xeyna ci Afrique gii lañu soxé ko wala ci réew euh, arabe yi wala fenen Nek France n'ek ay français am les mêmes droits que tous les français mais ñoñ amuñu droit tak ñaari jabar France. <laughs> ni France amé droit république am mu né kenn du fi am. pour kenn du fi am polygamie non le sénégalais war mes droits droit ne suñu république bi du fi am mm-hmm. te c'est le président Macky Sall lui-même Macky Sall lui-même qui règle la question parce qu'en 2020 euh, je renvoie à un intéressant article pour Ibrahim Anne bind Quotidien en 2020 le président Macky Sall recevoir Justin Trudeau le premier ministre Canada canadien Il xam nañ défendre le jigen a fu mhm. mais Macky Sall daf ko les lois de notre pays obéissent à des normes qui sont le condensé de nos valeurs de culture et de civilisation parce que Macky Sall daf ne mom suñu loi réew mi. dañ ko teunk ci li nga moy suñu ay valeurs suñu culture suñu civilisation mais wax am valeur droit parce que ñom dañu valeurs, ne seen ay valeurs seen culture seen civilisation goor am ñaari jabar bokku ci mais ñun au nom de quoi amuñu droit ñun sénégalais suñu ay valeurs suñu culture euh, suñu civilisation goor ak goor wala jigen ak jigen di bokku ci dañ c'est important Moi, ma japp né wa un yi def nañ bu am solo mais moment bi lañ a sen ay Cheikh pourquoi parce que à chaque fois le débat sur la criminalisation de l'homosexualité le gouvernement du Sénégal dafa am réponse bu tout le temps mhm. je ne sais pas ba Sénégal mhm. bu pression amee rek gis nga biñu marché fi euh, biñu dans les 45 départements du Sénégal le président Macky Sall deux ou trois jours après yàggul après daa de recevoir une ci organisation islamique lan la leen wax daf na leen am góor jigéen kenn du ko daganal ci réew mi kenn du ko fi euh, kenn du ko fi légaliser hum. loolu la leen wax mm-hmm. waaw bërki démb bi waa ànd il ji di waaj dem assemblée nationale pour déposer sen projet de loi euh, euh, proposition de loi pour demander criminalisation kan mo wax Aïssata Tall Sall hum. lan la wax

il demande plus moi criminaliser. mais à chaque fois je ne sais pas ba sénégalais ñi ngi dégg loolu. à chaque fois que débat bi jog rek réponse état au Sénégal moy duñu légaliser non kenn waxul nga légaliser dañ dal kenn waxul légaliser mom dañ la koo mayul. Eh, waruñu ko sax xalaat mayuñu lako waruñu ko sax xalaat. le problème moy dañ la nga criminaliser. et loolu ragal naa ne bu ñu assemblée. ñu dem proposition de loi bi jaar commission fan yi jaar yëpp ba dem plénière ragal naa ne débat ba xam nga fan lañ koy tourner député yi mooy non président Macky Sall nee na tant que mi ngi fi kenn du ko fi dagana te loolu doy na ba duñu voté loi bi et ça il faut ñu xëppi il faut bokk ñu xëppi si njibat xool bu baax loolu man si assemblée nationale boobu laa bëggoon ñëwaat sax mhm. déjà treize députés ñoom ñoo nangoo porté combat bi à l' assemblée nationale ñoom ñoo recevoir proposition de loi bi mhm. ñu bëri ñu ngi laaj seen xel man mii da bokk naa si mais waaw yëpp bu ñu ko wote woon nag

Euh, bu ñu amee lu ñu naqari ngeen regle ko ñooñu moom sëy ba dagg na léegi li fay des mooy assemblée boo xam ne président Macky Sall la fa nekkal ak la communauté internationale loolu koy sëriñ amul kii parce que tey soit moo am mhm. soit ma tànn man député laa ne pétition bi ma gis loxo sëñ Muntaxa signé ko loxo sëriñ Babacar Sy Mansour signé ko loxo Cheikh Maye Niass signé ko loxo chef église signé ko loxo kaca bois sacré ba signé ko pétition boobu mooy pétition bi Sénégal yi bëgg loolu laay def wala nga ne defuma ko man je préfère respecter li nga xam ne moom lu communauté internationale bëgg mooy am góor jigéen law parce que sëriñ li doy waar mooy dañuy wax ne légaliser wuñu mhm. ñu ne nañ criminaliser nga dégg yenn intellectuel naan way euh, euh, c'est irresponsable ndangu parce que Sénégal fi mu nek ci aduna bi affaire yooyu gis nga xëy ñun ñi ak ñi ñu jitu un peu mën nañ am chance échapper ci mais gis nga li dox ci aduna yi dem réew mo xamné ne jégoo ci sa ay matuwaay léegi di nga dem ba d'ici 10 ans 15 peut-être 20 peut-être même moins di nga gis ay goor goor di lengo ci suñu mbedd yi di defante leen neex te kenn du ci man dara. c'est vrai gis nga le président Macky Sall dafa am bat bu am solo bu mu waxon fi Obama ñëwé daf né ñun suñu ay loi ak suñu ay euh ñu koy waxe suñu ay diiné suñu ay valeur mhm. nanguwu wuñu am góor jigéen ñu yaakaar ne ca lay yam mu ne ñun population Sénégal paré guñu waaw Cheikh Tidiane soo ma woowee ne ma Moustapha yéegal ma ne la maa ngi sama bureau nga ne ma ñëw mais la paré guma ça veut dire que su ma paree ñëw hmm? ça veut dire que ñun mhm. ñun ñun ñi ngi dem peut-être d'ici 10 ans 15 ans 20 ans d'ici 50 ans je je n'en sais rien du tout dinañ pare

député, mat, plus de 100, 13 règles du corps porté. Faut comme il y a un problème. Non, non, non. 13 du corps porté, 13 règles. Objectif, il y a il n'y a aucun problème. Pourquoi Parce que la euh, euh, proposition de là, beaucoup de députés portent. Non, pour une population. Le symbole, c'est important. Voilà, voilà. Le symbole, c'est important. assemblée nationale yëpp ñoo ko. voilà loolu la mais mais solo mooy la finalité. la finalité mooy xam nga assemblée aussi ñëpp mënuñu defandoo lépp. Mhm. c'est comme fii di liggéey rek ñëpp mënuñu defandoo loo xam ne bu ko kenn defee. Mhm. Euh, am naa ne bu oustaz ko leeral euh, wala wala sëriñ. am na yoo xam ne ko defee mën na yóbbaale ñëpp. mais li am solo mooy bisu vote ba gis nga bisu vote ba Cheikh gis nga ni ñu defoon le juin Uh-huh. dem sikki député yi bañ bëggee ticket présidentiel xaw ma yooyu la sénégalais yi war dem assemblée vous député yi taxaw di leen xool ku di jour kan mm. mais jour non jour boobu buñ demoon jour jour télévision yëpp jour télévision yëpp mm. dañu direct site internet yëpp direct ñi dem assemblée dem taxaw di

faragum ci loi boobu. Mhm. est-ce que xel mën na cee dalagum ak. su fekkee ne comme ni nga ko waxee nii mhm. médiatiser nañ ko ñëpp yëg nañ ko te sénégalais ñu ngi koy xaar su jour ba bu ñu ko xëy na bu ñu ko voté wul wala mhm. sax ñu bari ci ñoom voté wuñ ko ba loi bu mënta taxaw lan la sénégalais yi war a war a mooy li wax Serigne Gueye mooy sëy bi day tas rek alors euh, li am solo mooy euh, euh, c'est une précision importante quand même mooy député yi nga xam ne moom la Cheikh Diagne tudd sax treize yooyu mhm. am nañu ci bokk ci benno ñu ci bokk ci majorité bi bu mel ne Ablaye Wilane Aliou Souaré ah, voilà ak la Euh, euh, ñooñu ci Aïssata Sabara e-, e-, exactement ci ci mm-hmm. majorité lañ bokk cela veut dire quoi am na ay députés yoo xam ne ñoom xaaruñu euh, directive bu seen groupe parlementaire jël nañ seen ay responsabilité mm-hmm. tey jii bu ñu demee ca vote ba député yooyu man quelque part dama jàpp sax ne député yooyu ñoom mën nañoo dimbali gouvernement au Sénégal mm-hmm. am nga ci naka parce que gouvernement au Sénégal xëy na bu jógoon ne mooy def projet de loi criminaliser homosexualité Macky Sall su génnee ci àdduna bi mën nañ ne président bii mooy mooy président bi xeex ak yelef comme ni koy à chaque fois ce mais su que ne euh, député nous traduire une demande du peuple sénégalais tay président Macky Sall man pour man dafa wara nek à l'aise Nek à l'aise moi fu mu dem buñ ko waxé mais man <laughs> je suis élu par une population population et élire une assemblée assemblée bobu réunir criminaliser homosexualité mais man président de la République il ma ci dara <laughs> dëgg mettre à l'aise mhm il faut que nous suñu il faut que nous am confiance ci sen peuple bañ di ay euh, su su Macron euh, wala ay Amnesty International organisation suñu rek d'ailleurs da ngay gis fi Sénégal ay di am suñu nguur du mais il suffit une chaîne de télévision internationale wax ci wala une organisation défense des droits de l'homme wax ci wala nous réew wax ci ñu xoolal réewum Sénégal mi depuis quelque temps ñaata doomu aadama ñoo fi faatu ci ay accident ci ay yoo xam ne kenn xamul lan la nit ñi bëgg lu bëgg lu ñu lekk amuñu ko leneen ak leneen yooyu yëpp am ci réew mi ñu ne UNESCO benn organisation bu ne ca France UNESCO ñu ne dafa def ceebu jën patrimoine <laughs> immatériel immatériel nga gis le président de la république jël jël jël téléphone am daal def benn tweet di di di ko rafetlu affaire yooyu. te jamono yooyu étudiant yaa ngi xeex fii. muy lekk ci problème mu lekk. exactement exactement ay intoxication. Ah, il faut que suñu suñu président yi ñu xam ne euh, euh, defe naa kii moo koy wax économiste boobu Cheikh Bamba Diagne ne moom li mu gëm mooy sénégalais ñooy fal il faut que suñu président yi gëm ne. am confiance ci suñu peuple yi xam ne ñooy fal et que tant que ñi ngi ci di défendre intérêt wu yi jërul ñuy ragal dara mais mais su fekkee Moustapha que njiit yi dañoo basé wu ci mhm. euh, biti réew pour mën a dundal askan bi wala sax mën a jëggaani mhm. alal joo xam ne koom boo xam ne dañoo mën a euh, euh, dundal askan bi mhm. est-ce que tamit dina baax ñoom ñu sóobu carrément wa tase peuple bi sóobu carrément ci criminaliser ah, homosexualité que muy faire les yeux doux Thioro loolu daf ñuy amener ci beneen défi boo xam ne maa ngi wax ne sénégalais yi dañu lancer défi assemblée su assemblée su leen assemblée wuyoo ci defi boobu sénégalais wala relevé beneen défi mooy défi wu ñu ci góobe gar ko. Mhm. ku ñu mere ñoo tey. mais le gouvernement sénégalais dafa war a relever également beneen défi mooy lan l' en général. mooy coro avant ngay ñëw ci àdduna bi yow. peut-être même avant say waajur di ñëw ci àdduna bi avant ñun ñii ñu ñëw ci àdduna avant suñu waajur di fi ñëw. Mhm. doo aide international dañ ko daan dégg ci réew mi. ñu naan Sénégal at mu ne ñu jot ci ndimbal ñaata ci milliards at mu ne ñu jot ci ay bor ñaata ciy milliards di leb rek di ñuy dimbali rek ba sax far seen benn Ousmane def ko film ak Gelwaar mm-hmm. ndimbal yooyu est-ce que gis nga ndimbal yooyu fu mu yóbbu suñu réew mi torox ñun ñoo torox la ah voilà léegi ndimbal yooyu bu ñu ko téewee lan la ñuy wàññi tey jii nii ñëpp jàpp nañ ne am na benn leader politique koo wax yàggul dara que li nga xam ne mooy am koom ci réewum Sénégal waxuma pétrole bi gaz bi génn de nga xam ne koom la quand même bu bari mhm. mu ne mais suñu suñu ay taxe suñu ay impôt li nga xam ne moom la ci état wu Sénégal di baale suñ ko jaarle woon ci yoon di ko fay ñi ko war a fay ñëpp di ko fay ñu def ko fañ ko war a def économiser li gouvernement bii di yàq mhm. li assemblée bi di yàq yeneen mhm. institutions yi di yàq économiser li ñuy def ci ay état euh, ak ay argine rien contre le sport <laughs> xamul yooyu mën nañoo dundal ba duñ soxla eddu kenn mais c'est le moment c'est moment ku tee edam ñu ne ñun am nañ fu ñu jëlee. parce que réew nag quand même. Euh, dem tant que woo ci sa ay ressources. pandémie bi sax yaakaar naa leçon la parce que tolloon nañ jamono boo xam ni. dem ak dikk bi lu si bëri manqué woon na. bon mënuñu wax ni financement ñëwut woon mais en tout cas dem ak dikk bi. da nga doon soxla waaw da nga doon soxla sax bitim réew dara ni mais mënoo dem manoo dikk. Mhm. pour wane ne loolu leçon la boo xam ni waroon nañ ko ci jànge déjà sax. malheureusement ñu am seen bopp bu amee ci côté gouvernement bi comme ni ko Moustapha waxee rek mhm. parce que mooy puissance économique yi doole nga xamante ne lobby yi am ko ci ci àddina bi. yabuñ ki nga xamante ne mooy Recep Tayyip Erdogan mi nga xamante ne déjà c'est un président Euh, imam kooku kenn yëblu ko faalewul lijjantilu leen parce que économiquement mu ngi ci réewam te mhm. amul appui ben ben ben pays mhm. donc euh, ak niñ koy xex malgré liñ koy xex tout ça mhm. ko xamné dem na bëgg ba meree France euh, ci ay mesures yu ñu jëro nga xamné ne mu génn ci marché li nga xamantene moy produit bepp bi produit français kon kooku faalewut ñi nga xamantene ñom ñoy ñooy yenn lobby yenn puissance réewum bëgg bok Union européenne tuba bi lankal ko ko mais mais ba te teewul tey jii suñu jigéen ñi ñëpp ku ci bëgg yëre yu baax ak yéen turki ngay dem euh, tey jii chantier yu bari yu président Macky Sall lancé woon ci réew mi tardé <laughs> ñen ñoo ko defar ñoom la turk boo demee jëm ñaajo gën a boo fa génnee dafa turki yéen waaw soo deful daanaka ci àll ngay ah, ne aéroport bi soo demee aéroport bi waaw aéroport bi ñoom la fa ne alors alors gis nga coro gis nga ñun ñun wax dëgg yàlla to non bañ a jik ñu topp gi ñu topp réew tubaab yi France ak man je n'ai rien contre la France peut-être qu'on euh, on dit souvent que c'est le premier partenaire du Sénégal amul problème xëy France am na lu amul problème mais depuis 1960 wala a ba colonisé, ñu coloniser ba jóge fi jox ñu indépendance ñun fenn France a ñu lu mais est-ce que nous avons ñu xippi suñu amuñu pour di nek ci ay conflit ak France ça ne sert à rien parce que xëy amna lu ñuy jariñ mais jotna également comme niko Ablaye Abdoulaye Wade doon waxee que ñu gëna diversifier. Mhm. Ablaye Wade bi mu fi nekkee président nga gis Sénégal di commencé intéresser chinois yi. intéresser malaisiens yi intéresser arabes yi turquie nangam ak nangam. Mhm. mais avant Wade waa ji dëkk Louga nekkoon fi français yi rek français yi rek. waa ji ñëw également non mais attends ça pose problème. français yi eh, te te ah, ah, ah. mhm. gis nga ñun euh, bokk na ci li ñu tek coono moy nek colonie France wala bok nekkoon ko. Mhm. te sax ñu bari japp ne mo la nek ba léegi ndaxte France gis nga réew mom yàqute gu bari ci àdduna bi fa la jógee. Mhm. avortement médicalisé gi ngay dégg. Mhm. avortement gi ciow li bari. France ko bi voté. Euh, euh mbirum goor jigen bi la gauche ñëwaatee au pouvoir en France ak euh, tudd. non euh, ah, François Hollande. ak Christian Taubira comme ministre de la justice. Mhm. ci l'a légaliser mais mariage diggante góor ak jigéen. à chaque fois que la gauche gouverne la France moom yu bari yu yooyu ci lay am. Mhm. parce que soo dafa boo demee ci ci yenn réew yi parti yi dañu am ay tradition. Mhm. soo demee les partis de droite en France dañu dañu dafa am yoo xam ne souvent duñ ko négocier. ñoom ngay gis d'ailleurs ñuy xeex euh, ci yenn contre yenn décision yenn liberté yu demee noonu quoi mais soo demee à la gauche bu ñu gouverner la France booy seet yu bari ci lay am avortement yeeg euh, légalisation de la euh, affaire yooyu boo gisee bi Trump nekkee président aux États-Unis mais li nga xam ne moom la Biden may ay góor jigéen ak yeneen foofu Trump nanguloon yooyu ko woon mm-hmm. parce que Trump est très attaché nu ñu koy waxee à l'église ak yu demee noonu mm-hmm. c'est-à-dire que yooyu ay réalité yu am ci yenn réew yi tubaab bi nag du am réalité yooyu nangul ko seen bopp ba pare bëgg ñu ko bañal ñun dañu am suñu ay réalité suñu ay réalité mooy réew mii ñu nekk ay jullit a fi nekk. Mhm. ak ay chrétiens. ak ak ñeneen ñoo xam ne ñoom ñëpp dañoo gëm ne yàllaay seen buur ñoom ñëpp dañoo gëm ne si àdduna bi yamul fii boo deewee da ngay rendre ay compte ñooñu nag comme dañoo gëm loolu boo leen dee jiite danga leen di fekk ci loolu mais mënoo leen a jiite naan way àdduna bi nangam ak nangam la république nangam la république c'est quoi mais Moustapha euh, est-ce mhm. tamit euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy les soi-disant intellectuels mhm. comme ni ñu koy waxee ñoo xam ne dañu jaar ci ay intellectuels sax mhm. <laughs> euh, ñu nekk di kañ xam ne ni moom mooy jëf ji nga xam ne ni ñenn ci sénégalais yi soxla nañu ko. Hmm. wala sax ñu koy xe eh, soofantal ci kaw euh, yaakaar wala xalaat ne koomu Sénégal mën na cee nërmeelu. Hmm. ci kaw bu ñu criminaliser homosexualité fii ci Sénégal. Hmm. donc bu ñu gisee aussi yooyu intellectuel di ci bind wala sax ñuy yëkkati seen kàddu di ci wax. est-ce que xel mën naa dal ci mbir mi ak ñoom ci lan lañu tënku ba tax tey jii ñu war a mën a yëkkati kàddu yooyu. ah fi ñu tënku rek mooy nampé tubaab bi. xam nga soo nampee ji France euh, euh, jànge fa mhm. euh, yow li ngay liir yëpp ay livres yu tubaab yi bind la ñooñu ngay dégg li ñuy liir yëpp ay livres yu tubaab yi bind la. ni ñuy xalaatee ngay xalaat xalaat forcément sooy ah. liir yi li tubaab yu bind. Mm. nampe ci ñoom ni ñuy xalaatee ngay xalaatee. Ah Youssou Ndour mooy way ne nampe xaw ma juddoo ci xaw ma la nampe ci xaw ma lan. mais liir liir yi alors su fekkee ne ci loolu nga nekk. dangay dangay nek ngay wax naa fi ben jour li tubaab bi wax ay œillères c'est-à-dire moy ñuy takkal fas yi mhm. def ko ni nga xam yow fi ngay xol rek ngay xol c'est-à-dire que ñom euh, da nga gis intellectuels ils sont incapables et ça également ça pose problème parce que intellectuel quand même moy nga xam ne capacité de comprendre sa société sa société ak ni mi avancer ñoo ils sont incapables de comprendre société Sénégal bi ak ni mi doxé li ñuy xalat moy li tubaab bi xalaté exactement comme tubaab bi xalaat parce que bo taxawé nga ne la république doit protéger tous les citoyens je suis d'accord mais demain le wax français c'est une république également il faut protéger les citoyens français yi veulent pas ñaari jabar euh, on ne doit pas euh, aller regarder dans la culotte des gens mais lourd, presque presque insulter les gens parce que ni Wa ànd sàmm par exemple ñoom beaucoup kenn ne demal ci néeg yi ngay fëgg di xool ba xam est-ce que ñaari góor ak ñaari jigéen dañ fay sëy mm. non mm. waxuñu kenn demal ci néeg yi ngay fëgg di xool di yëddu ko moon di naan ndax ah fii de xëy na ñaari góor ak ñoo fi nekk fii ñaari non non dañ ne ku ko def ci pénc mi jaar la ci yoon mm. yaa ngi dégg parce que tey Sénégal gi boo fi tegoon loi yi nga bëgg yépp du du tee am ñoo xam ne ñi ngi seen néeg wala seen i kër def la bëgg a def mais boo ko tegee ci pénc mi mm-hmm. mooy nga def ko ban jàpp la ci mooy yaa ngi yaa ngi ko teg ci mbedd mi. bu ñu la jàpp dañ la war a teg ay daan. sàcc bu raw kay kenn mënu ko dara. ki ñuy daan kay mooy jàpp ko. ki wax lii de su doonee criminalisé nañ tey loi bi. xanaa dinañ ko toppee apologie de l'homosexualité xanaa war nañ ko. su fekkoon ne jamono ji ji dañ koy topp. voilà dañ ko topp waaw. loi bi moom bu tegoo moom. waaw moom wax yooyu dootul amati. dootul amati waaw bu ñu ko ci livre Mbougar Sarr nga xamante ne. waaw surtout ça quelques extraits rek li nga xamante ne homosexualité pour waree ne yàgg na Sénégal parce que homosexuels yi ñoom ñoo doon ñi nga xamante ne dañ doon bëggal ay ay nit ñi ak jigéen ñi nekkoon xaritu jigéen ñi pour dire daal benn image boo xamante ne positive na ci homosexuels yi mais teewul prix bu mag bi nga xamante ne am nga ko am na ko muy concours sénégalais dañ koo teg fële di ko di ko critiquer donc loolu rek non sénégalais sénégalais yu bari sénégalais yu bari faatu euh, euh, euh, ni ñu ko waxee sax saluer woon nañ au début prix bi waa jotee yëpp parce que waa prix bi mu jotee livre livre bi mu joté prix bobu bokkul ak livre bi mu waxé ci affaire góor les purs hommes la ñu mais exactement ah, mais dafa am loo xam souvent da ngay dégg suñu intellectuel ñu koy wax modi né ne way góor jigéen euh, yàgg na xeyna na na fi mën na nek mm-hmm. mais souvent li ñu lay wax moy dañ na la waw so da dem ci xew yi ñom ñofa daan di and ak gis je suis désolé je désolé mais ay c'est parce que c'est pas la même chose. parce que souvent da nga daan gis ci ci ñoo xamne dañu dañu dañu dañu dañu dañu efféminé même di togg di raxas di ki amna sax ben bu télé très souvent daan les ay la ay ay et tout. Mhm. di di fecc des ay clip yu daan fu mhm. mais dafa mais ñoñu duñ ay Jigen, ni ko bëgg dégg dañ doon am soxna ami suñu il faut faire la différence entre ça suñu société bi nous fi am mais ñoñu li ma ci xam a neew néew ñoo dañ doon am soxna am mais da gis problème bobu lañ am moy goor ak goor buy ak wala bu am mel mel na mu war a mel dem di sëy ak ay ay ay ay ay ay moroomu góoram yooyu bu dee am ci seen ci seen ruq kenn mënu ci dara parce que loo yëgul mënu ci dara mais bu ñu ko defee ci penc mi nag ni ma ko waxee sànq mooy sàcc bu sàcc ba raw kenn mënu ci dara mais koo ñu jàppale nag ci mm-hmm. li góor ñi nga xam ne dañ daan accompagner jigéen ñi su xew amee ci waañ yeeg yooyu ña ngay eh, nekk ca fa ñuy nekk toog yu nu mel na ba léegi mais daa amatul amatul loolu amatul déjà ndax tey ji boo demee ci xew mm-hmm. eh, tey eh, bu ma jël ci suñu mbokk isbu isbu yi waa isbu tarxiye ñooy toggal seen bopp ñooy toggal seen bopp ñooy defal lépp seen bopp te buñ ko ko dee def la ñuy sol macha allah takk ah, seen i ndigg non yoo xam n'a absolument rien à voir euh, li Moustapha euh, wax léegi Sénégal ñemewuñ transgenre yi ñemewuñ di circuler nii mais am na pays yoo xamante ne da ngay gis ñuy circuler mm, mais samedi soir nga gis leen ñuy oh, def oh, dama xamul kan la euh, ci magu Sénégal yi bëgguma wax tuur te wóoruma mais dégg naa am na ci ci mas a dem Amérique nekk fa ay fan bi mu ñibbisee ne moom daal wax dëgg yàlla li gën a dal xelam mooy baamtulam la mu fa julli woon yëpp ñu ne ko tax mu ne moom daal dafa gis am réew moo xam ne ay góor ak góor ña ngi fay ànd di lëngoo di fóonante te loolu moom xalaatul <laughs> moom xelam mënu koo voilà mais bu gis nga nag bu ñu parce que léegi dangay gis suñu presse bi am na benn site internet bu ko fi def temps yi la ci ginnaaw dem interroger benn góor jigéen muy expliquer di wax affaire yooyu yooyu euh, bu li Serigne doon wax su loi bi jàllee dañ koy boole ci apologie ah, dañ boole ci apologie parce que tey tey jii nii suñu suñu réew mii bari na yoo xam ne mi ngi fiy am loi bu la ci jàppee dalay daan mm-hmm. mais nit ñi ñi ngi koy def

jébal kii bi euh, proposition de loi bi am na benn imam bu ko ne lii histoire dina ko bind. Mhm. histoire retiendra. Mhm. xam naa buñ ci interroger histoire yombul askan wi di bind pétition kilifa di ni àndee ci ni ñu ci àndee nii. Hmm. xam naa yombul Moustapha yéen ñi nga xam ne yéen ñu ci jiitu ci mbir mi moom. non non yombul yombul. te te te mieux que ça histoire dina histoire dina retenir loolu. waaw ànd mhm. sàmm ji ko est dans l'histoire beneen bi mooy su ñu demee. keroog euh, ba ñu waxee ne dañ ko wara a dem plénière ñu wara voter Sénégalais yooyu ñëpp xol ñëw ñëpp ñëpp ñëw di xol mhm. dana am député yu entré dans l'histoire par la grande porte définitivement am ñoo xamné par la petite porte tey jii les 13 députés laa ngay dégg l'histoire retiendra 13 yooyu parce que 13 yooyu 13 mm. yooyu bu na la leer né tay amna ci réew yo xamné xeyna buñ fa démé man mm-hmm. na leena indil ay jafé jafé mm-hmm.